ci dëkkam fi ko yàlla tànnal mu judoo foofu mu tekkee foofu di liggéey foofu di teral boppam di teral ay mbokkam région boo gis Sénégal am na potentialité maanaam am na loo xamante ne ci lañuy ñu war a mën a sëkk sukkandiku pour développer ko loolu moo tax dañu jël Sénégal xaaj ko en six pôles régionaux six pôles économiques régionaux six pôles yoo xam ne président Ousmane Sonko wax na ko sax ci vision territoire du développement bu mu bind avec le frère Bala Moussa Fofana ñuy wax ne day am cohérence aménagement du territoire bi ñu duggee biir Casamance ba tey lu ñuy séntu mooy département yoo xamante ne bokk na ci yu gën a ndóol Sénégal fi chômage gën a bare te pourtant ni ma ko doon waxee dëmb biir Ziguinchor noonu laa ko mën a waxee dans toute Casamance naturelle bu ñu jëlee na potentiel de la Casamance naturelle muy Sédhiou muy Ziguinchor muy Bignona muy Kolda ji ñuy jëm après amul fenn koo xamante ne koom ak naataange war a faa mën a nekk. fu ci nekk war na mën a nekk un centre d' activité économique boo xam ne lépp lu fa waaye war a mën a def mën na ko war na ko bëgg a def war na ko faa mën a def. loolu mooy li ñu wax démb ci idée wu bi ma doon wax bërëbu Ziguinchor. bu ñu xoolee potentiel am war na mën a nekk capital économique capital culturel mais Sédhiou gi tamit war na mën a nekk capital économique capital culturel parce que culture am na fi bu ñu sukkandikoo pour sàmm saxal fi koom-koom bu law am na fi donc loolu mooy idée wu pôle économique régionaux yi loolu moo tax ñu ne ñun bu ñu bëggee développer Sénégal ci mbéy mi la ñu sukkandiku ci formation yi waaye loolu dafa am lu laaj dañoo war a jële béykat yi ci béy dunde kese def leen ay entrepreneur ou ay agro entrepreneur ñu booloo ci ay coopérative de d'agriculture yoo xam ne dañuy béy di transformer di jaayi te loolu lu war a mën nekk la dañoo war a béy former béykat yooyu ba ñu mën di gérer seen mbiru bopp seen coopérative agricole yooyu agricole yooyu du doon béy kese waaye dafa am gestion commerciale am transformation te loolu lu ko war a accompagner mooy lan mooy benn suuf si ñu fexe ba ñu koy béy moom ko mën ko utiliser comme garantie ci banque ba pare mën ko sàmmal seen bopp ba pare ci pôle yooyu nga xamante ne ay pôle agricole lañu ñu développé foofu une petite industrie boo xamante ne lépp luy tracteur lépp luy machine agricole lépp luy équipement agricole ñoom ci seen bopp ñoo koy fabriquer seen bopp. ñu développé fa des unités de transformation ba ñoom lu ñuy béy puisque dafa nar a bari ba moom mënuñu koo lekk balaa ñu koy jaay ñu mën ko transformer mu mën a nekk des produits finis yoo xamante ne duñ ko jëyee rek jaay ko dem joxe ji ko ay ñu leen di ko transformer di leen ko jaayaat. kon lii bokk na ci ay tomb yu am solo ci suñu programme yoo xam ne waxoon nañu bu ñu ñëwee fii Sédhiou dinañ ko partagé ak yéen ngeen déggandoo ko ñun. waaye loolu nañu koo def ak un régime boo xam ne mënul gérer yem ci lu mu moom lu ko lew lu muy mën a lekk mu lew ko mu di ko jox njabootam. xam naa ne yéen waa Sédhiou fàttewu leen ñu bu leen bu ñu fi feebaree mbas mi ñëw. ñoom ñi luubal suñu alal ñu def ay audit ba jàpp leen kenn toppeewu leen ci déglu leen ma bu baax ci li ma nar wax nii parce que fii Sédhiou laa koy waxee senegal yëpp dégg ko àdduna yëpp dégg ko loxo yi ay loxo lañu loxo yi ay set lañu def naa 15 ans ni sama mag ji président Ousmane Sonko amoon kenn ku lay wax biir Sénégal mos naa jël dërëmam ci loo xamante ne lawuma amul. bokkuma ci fonctionnaire milliardaire yi laaj réew mi pour gën ñoo dugal ci ndóol di gën a defar seen bopp. te lii dinaa ci andi firnde gu leer ci semaine bii début de semaine bii. dinaa wax sénégalais yi sama alal nu mu toll muy sama déclaration de patrimoine ku ñeme na def ku mën na def may invité candidat yoo xam ne nekkuñu woon lenn lu dul ay fonctionnaires occupé wuñu lenn lu dul ay fonction publique wala ay public ku mel ne Amadou Ba na déclaré patrimoine am ni ma ko nar a defee man saa yu ngeen déggee saa yu ngeen déggee ñuy wax affaire pétrole affaire gaz ni ñu defaree seen bopp la ñuy xalaat. alalu senegal nag ñu ngi ko luubalee ba waa Sédhiou gisuñ seen bopp si pétrole ak suñu gaz te ay loxo yu set lañ koy teg ñu yor ko yor yu set Sénégalais yi jëfandikoo ko bu baax a baax a baax dugg ci biir Sénégal ak ndegte. kon ñu ngi leen di ñaan au soir du 24 mars 2024 bëgguñu deuxième tour dañoo yoo dañuy wóoru bëgguñu deuxième tour dès le premier tour à 18 na carte leer ngeen jël Sénégal teg ko suñu loxo ak góor ak jigéen yi xamante ne ay femmes de principe lañu laaj nañ leen dara sant